salaamaaleykum. aleykum salaam wa man maa ngi tudd Omar Mbodj dëkk euh, cité Colonel dëkkoon cité Colonel mais comme nga dàq nañ ma foofu mu génne dëkkoon laay wax waaw maa ngi fii Parcelles Assainies unité 16. Euh, plus de 31 ans nga dëkk ci benn cité xëy ñu génnee la nga nar fanaan kër goo xam ne daanaka mosoo faa fanaan nan nga dundee guddi googu. Euh, naqar ak tiis laa ko dundee parce que comme ni ko waxee rek trois ans nag dafa fekk ma miin Claudel xam Claudel samay doom yëpp juddoo Claudel te xaw awma fenn fu dul Claudel fii ci Dakar kon ba bu ñu mujj jëkkate yëkkatee par la force jël samay bagage def ko ci ay oto ne dañ koy yóbbu euh, amitié ah amatuma pexe moo tax ma ñëw dëkk si fii fii nag dëkk bi sama ñëw guddi bi nelawuma nelawuma sama njaboot nelawuñu ndax environnement bi ñu xamuñu ko vraiment environnement Parcelles Assainies sérieusement xamuñu ko parce que c'est la première fois ma fanaan fi te kër gi maa ngi ko am depuis quatre-vingt-neuf laa ko am c'est la première fois ma fanaan fi tey mais façon bi fanaane moom naqari na ma ba fu naqari yam est-ce que bi nga ñëwee ci kër gi euh, disposition yu tax ngeen mun ci dëkk seen bagage ngeen teg ko ni mu waree fekk nga ko ci kër ga. mais non justement parce que man sama bagage yëpp ci néeg yi laa ko def man bi may tëdd démb ci suuf fauteuil laay tëdd samay njaboot ci suuf lañ tëdd lal ay mat laa boo xoolee salle bi fii bagage yëpp dafa fees ci néeg yi mais plus grave que ça sax man sama plafond dafa daanu mënu ma fee dëkk amu fu mu jëm ah xanaa ma luye ji wala ma sama mbokk jàppale ma wala ñu dimbali ma mais li nga xam ne moom maa ngi dund démb ci guddi. naqari na ma trop te metti na trop te tiis na trop tiis na si man tiis na samay njaboot tiis na samay doom waaw. démb léegi est-ce que jot ngeen ay autorité yu jëm ci wàllu commune bi wala ci ministère bi wala yu jëm ci wàllu dëkkuwaay. dara du dara du dara waaw suñu autorité administrative yi nga xam ne yaakaaroon nañ leen gisuñu ci kenn dem ku maire maire bu Fann Point E Pala Samb moom vraiment. sol na ay dàllam ñëw na mass wuñu waaw xamal nañu ko xamal nañu ne bu doon moom rek la ko duñ fi jóge waaw mais nag autorité militaire yi ñooñu fa jëlee encore une fois de plus te anam boo xam ne bii anam bu démagogique la anam bu bu bu bu jéggi dayo la anam boo xam ne même xale yu ndaw suma doom bi nga xam ne am na 10 ans tey dafa naa papa yéen ñi ñi dañu ëpp doole moo tax ñu jóole leen fi te loolu muy lu ñaaw lu ñu naqarlu loo xam ne bëggoon nañu Macky Sall yëg ko bëggoon nañu Marième Faye Marième Faye Sall ko bëggoon nañu autorité administrative yi militaires yi xam ne def nañ loo xam ne li mosuta am Sénégal pourquoi ma ne mosuta am Sénégal c'est parce que on peut pas comprendre une justice ah donner des conclusions pour dire dénoncer que le comporte euh, comportement militaire yi euh, ni ñu ko defee euh, jaaduwul ah waruñu mun a génne foofu ci camp bi ñu jalgati ko ah nañu carrément justice bi lii la wax mais ñun militaires yi lii la ñuy def muy descos loolu moom c'est du jamais vu dans ce pays là. comme nul n'est au-dessus de la loi seen avocat xanaa dinañu ubbiwaat dossier bi. mais justement parce que ma non wax ma suñu avocat non du suñu avocat kese ah actuellement nous on a saisi les droits de l'homme Alassane Assane Dioma Ndiaye il est prêt à nous défendre parce que nee na injustice Sénégal la mën a yem parce que li lii ñuy def dañu bundu xataal. toroxal ñu génn suñu bagage tegal ñu ay camion par la force ngeen dem ki doon ko capitaine bi nga xam ne moo doon mën opération bi daf ñu wax carrément tey di ngeen dem ci nii mbaa ngeen jëm ci nële dem ci nii mooy lan topp si ndigal dem ci nële mooy lan yeew ñu takk suñuy loxo wala ñu enchaîne ñu yóbbu ñu te defe ne bu yóbba bagage yi daf koy sànni euh, stade Lamine mais ñun loolu moo tax ñu jaaxle loolu moo tax ñu décorage ci dëkk bi parce que justice amatu fi wala justice am na fi mais autorité yi yi nga xam ne ñoo ko war a doit faire respecter la justice eux-mêmes ne respectent pas la justice. ci tolluwaay bi nii gis nañu plafond bi ni mu mel wóorul nga dëkk fii est-ce que am nga loo xam ne mun nga ko dajalee bu buñ la waxoon appartement yi nii nga mën a joxe trois mois avance. ma ne démb démb bi mu ñëwee démb suma premier objectif suma première démarche yi ma def mooy dugg ci fii ci cité bi pour am lo euh, euh, location. dem naa ci benn kër ñu ma cent soixante mille francs lañ lay luye kër gi cent mille francs yi damay joxe trois mois de caution muy quatre cent quatre vingt mille man fan la jëlee quatre cent quatre vingt mille fan laa koy jëlee un retraité fan la jëlee quatre cent quatre vingt mille ak avec une personne qui vit avec sa pension qui a deux épouses ah? mais fa fan laa jëlee loolu ah mais lii dañoo toroxal dañoo toroxal suñu dignité humaine la ñu bafoué te kan moo ko bafoué muy Descos ak ñu mu àndal voilà démb loolu lañ ma wax ma ne la mënu ma loolu bi ma ñibbisee suma kër ma oo sama njaboot ndelan kat uti woon naa nekk mais dafa cher mënu ma ko mënu fay tey ci plafond plafond bii tey gis nga ko nu mu nu nu mu daanoo mënu fa dëkk du ma du ma jaay ay risque ay laa fi def salle bi bagage la plafond euh, néeg yi ay bagage la waaw kon boog ban man damaa ja ci njàqare la nekk. waaw lan mooy sa dernier mot. sama dernier mooy euh, euh, kër gi kër gi. plafond bi dafa yàqu boobu bu lee boo nga xool ko plafond bi néeg yi seen plafond bi dafa mu ngi seen dal baa ngi daanu euh, véranda bi xool ko nu mel dal yaa ngi daa daanu néeg bi dafa xappatuko ba daan suuf mais naka la fi dëkkee suma dernier mot mooy kii nga xam ne mooy président de la république du Sénégal le chef de l'État de tous les Sénégalais góor ak jigéen mag ak ndaw ñu koy interpellé moo ko ak jabaram épouse Marième Faye Sall ñu baax lañu nañu jàppale nañu dimbali même bu dee subvention la ah ñu jox ñu ko ñu defal suñu kër et je dis une chose man am naa fi fii bu naa la boobu ma woon la bu ñu ma defal pour ma defar suma kër gi 3 millions 780 mille lañ ma la la laa ko defal mu nga xool pour nga la que defar suma kër gi il me faut 3 millions 780 mille ah loolu fan fan laa ko jël sax man je ne peux même pas payer 400 480 mille. ah ñu bëgg ma defar sama kër ci ay 3 millions 500 fan laa jëm en tout cas daal lii Descos def lu ñaaw la nit ki boo koy jox délai na nga koy jox un délai raisonnable le délai raisonnable le minimum de délai raisonnable qu'on peut accepter c'est le 6 mois le 6 mois c'est le c'est le 1 an c'est un an c'est pour un an mais ay délai 45 jours ay délai 10 jours indi say say say say say say say say say gendarme ne da ngeen di génn par la force tekk ndu fi fanaan loolu lu ñaaw la loolu autorité militaire yi war nañoo xoolaat li ñuy def bu baax loolu mooy sama dernier mot.